asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yëpp mbokki taalib yëpp noo ngi yeesal sunu cant ngoo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amut fu mu yam di ko jëmale ci sunu borom waaye dellu di yeesal sunu tuubal ko ci mbooleem suñuy rëcc rëcc ci pas-pas ci kàddu ci jëf ndax dafa xoolut ci nun dara lu may yërmandeem rek xoolut ci nun dara lu may xool na bëtum ngëneelam xoolul ci nun dara lu dul defal nu bëtub jagleem te lum doon nu lott ca joxe cant ga ca war ndax lim lay defal nga di ko dund du doon loo mën a waxtaane xanaa ka nga ci tollool ay yëg-yëg wala ngeen bokk ca ay yëg-yëg waaye ni xuta waxtaane waaye noo ngi koy sant te di ko yëg te xam ne coobareem rek la loolu lépp dara waru ko ci noonu moom yàlla sunu borom dara waru ko ci noonu de ndax amaloon sunu bopp moo nu amal moo nu moom moo nu melal moo nu kàttanal kon sunu lépp moom la kon lim nu dénk rek ku ci ne gis nga lañ cey jëfandikoo waxuma laak nag moom mi nga xamante ni moonu moom ak lam nu dénk lépp mu bokk na moom kon ku ne xam ne dara waru ko ci noonu waru ko ci noonu mu def nu ay doomu aadama dafa nu ko def ci coobareem ak yërmandeem ak teraangaam waaye du la ko war ci noonu ni nga xam ni bàyyi ma yi ci desit du dara lu tax mu def leen ko lépp daf koo teg ci coobareem nun ñi ay doomu aadama yi ci teraangaam yi yaatu jooju it li mu waxe ni tilka rusulu fadalna ba'dahum ala ba'd doomu aadama it ngëneel yi noonu la mel ku ci ne fa ngay juddoo tànnoo ko ña lay jur tànnoo ko béréb ba it tànnoo ko jamono ba it tànnoo ko da nga gis ko juddu ci way am da nga gis ko juddu ci way ñàkk da nga gis ko juddu fu tàng da nga gis ko juddu fu sedd da ngay gis ku juddu fu bekkoor da ngay gis ku juddu fu naat kenn ku ku ku mu ci doon fa nga juddoo tànnoo ko ñale jur tànnoo ko loolu lépp coobareem rek la da nga gis koo xam ne dana dund ba génn àdduna te ñaare sax du gis fu xuy ab làmp fu muy xuyee loolu coobareem la nga gis koo xam ne dana judd daanaka ba génn àdduna ngir mu gis ak lëndëm lu jafe la nga gis koo xam ne dana judd ba génn àdduna daanaka lenn lu tàng lu koy sonal mën na ko bañ a gis te lépp ci coobareem la te yooyu yëpp boo xoolee ci coobareem rek ci la ko def coobareem joojee nag kenn ku ne ci noonu mu yëg ca loo xam ni ñi ci ëpp du loo mën a waxtaane da ngay xam ne mbaaxam rek la ak yërmandeem kon ameel nañ ko cant ko am na fu mu tàmbalee waaye amut fu mu yem ndax li ngeen may askanale lépp ci ak cant moom la li ngeen ñuy jéem a askanale lépp ci tawfiq moom la lu mu doon rek moom la moom yàlla sunu borom la nun doonuñ ca dara te xamal nañ loolu sunu bopp it xam gu leer ci sunu bopp kon noo ngi koy sant te di ko tuubal di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan sunu borom lépp lu mu tànnal sëriñ bi mu wommatal ko ko ci gën gaa rafetee ni anam di di nuyu ak a siyaare jullit ñépp nag ci at mi nga xamante ni mi ngi tàmbali benn fan aljuma ji nu wees jose topp muy at mu yees ci nun ñëpp di ñaan sunu borom muy doon atum barke atum ngëneel atum ngërëmam atum gën a sax ci dëgg akum jub atum mucc ci seytaane ak ndog ak pakk ak musiba ak balaa ak at yi des ci sunu dund yépp dañ di ko ñaan mu defal na ko at yu bari lool te mu ànd ak wér ak mucc noo ngi leen di nuyu di leen siyaare di dénkante ak a fàttalante nuyoo bi ak siyaare bi di ci jiital sunu bokki taalibe yi nga xam ni noo bokk féete fii ni ko sëriñ Siyaa waxee ñun ñëpp ay laxasaay lañ ba ci man mii maa ci jiitu muy tuut tànk yi nga xam ni noo ngi ci daara ji ak ñi nga xam ni sunu borom dogal na seenu liggéey mat na fi bañ nekk ci yeneen liggéey tañ bokk fi daja tey ak seeni wëllëre ak seeni way jur di leen ñaanal sunu borom def leen ay mag te def leen magi lislaam yéen ñi nga xam ne yéen a leen di taxaw muy Serigne Cheikh ak ñi nekk ci sa gannaaw yépp saa borom gën a yokk wér gi gën a yokk fan wi taxawaay bi rafet na te matale na sëkk te ànd naa pëstéef ak yitte joo xam ne xam nañ ko ci seeni xol waaye feeñ na ci seeni jëfit ndax nit lu ne ci moom dana feeñ ci ay jëfam ndax jëfkat mooy fésal nit ki ñaare li ne fi moom ndax ak cant dañ koy faral di wax waaye cant jëf la nit boo toogee naan man day maa ngi sant man day maa ngi sant te jëfoo dara sant goo cant jëf la booy sant sunu borom da ngay seet la bëgg nga ne ca ci sa digganteeg moom ak sa digganteeg bindeef yi loo man ci jëf ci nit ñi lu baax nga di ko def rawatina tànnee fi nit ñi nga di ko def muy jëf cant jëf la kon noo ngi leen di ñaanal bu baax sunu borom gën leen a taxaw te gën leen a sàmm te gën leen a aar ak waa université ak bokki taalibe yi fi nekk yépp ci ci njiital sëñ Cheikh Mabé ak sëñ Mor mi doon wax ci seen kàddu taxawaay yépp rafet na bokki taalibe yi fi teew yépp taxawaay yi rafet na ndax xëy na bis bi dañ ko woye fa leen toy ren jii ndax ni jamono bi tëddee taxoon na ma ne sëñ Baye mi bi mu fi ñëwee dibéer jële indil ma yëgle buñ ci def dama ne ko bu ko kenn jàllale nañ ko bàyyi noonu rek sëñ Cheikh Mabé mais sax àggoon naa ci ne ko da ngeen di seet ñu yam rek ñu ñëw ci oto yi waaye nit ñi ak seenu xir xëy na moo waral lii terewul sax ñu ci bari jubale naa leen ca jannatul firdawsi ca liggéey bu nekk foofa muy waa Kër Mbay Faal ak waa waañ week waa sécurité mbooloo nga foofa ndax damaa bëgg saa su ma jógee fii ñaanalante dem siyaarante siyaare leen ñoom i tamit ñaanalante ñoom foofa kon taxawaay yépp matale na te rafet na noo ngi leen di sant ci weesu yépp tey ñaan sunu borom yokk nu kàttan ak tawféex ci li ci kanam ba lépp gën a rafet te ànd ak mucc ak kaaraange bis bi nga xamante ni noo ngi ciy dëg dëgmalit xëy na jamono yépp lanu ci waxoon nun waxtu ne noo ngi ci mooy di sant yàlla di sant le sëriñ bi yàlla sunu borom loolu mësuñu cee jóg xëy na ci defin wi amoon na ñoo xam ni ci lañ doon xalaat ba xam ndigal la ci ki ne ci bopp yoon wi di joxe bi ci sëriñ bi joxe nu muy tëdde xëy na léegi day mel ni ci liñ jàppagul mooy les mën a def la waaye sàmmanteeg ndigal yi nga xamante ni docteur yi labirante labiré nañ ko ci loolu nag ma ciy wax ak yéen tuuti moo di nun day ci lañ nekkoon naka jekk muy ni ma ko waxee cant gi muy ay jëf xëy na mosuñ cee jóg waaye nag doon nañ ko gën a yaatal te yaatal googu it tàmbali nañ ko nun démb fas yéene it tamit nag mu gën a yaatu ba li ma ci jàpp man ci saawetu bopp lu ma ci daan feeñal ci sama yéene ren ci màggal gi nu jëm fas naa yéene mu yokk kum doon ci bokki taalibe yi nga xam ni sa man-man ak sa kattan sa am-am may na la ko loo ci doon def na yokk jëf ja nag nañu koy jëfee dees na ko xam ba ña nga xamante ni cant googu nun war nañ koo jëf ci sunu jëmm jot li ko ci ñeneen it loole nu mu gën a yaatoo moo ci gën loolu maa ngi koy digal ñëpp defe naa ne njàng alxuraan mi diiwaan yépp ñu ngi ci woon ndax loolu bañ ko santaane léegi def na diir loolu it dafa war a wéy te dafa war a sax waaye nun sunu jaamu waruñu ko yamale ci jamono wala ñu di ko yamale ci waxtu déedéet nun war na noo weesu foofu waruñu warutunoo doon koo xam ne feeg newuñu allahu akbar ci jàkk ji sam xel du dem ci yàlla loolu war nañ koo weesu loolu jaamu ko waxtu rekk la kon déedéet waaye sunu borom dañ ko war di dund saa su ne waxtu wu ne foo man di nekk ci sa biir kër ci sa liggéeyukaay ca marché ba ca toolee di bay yëngu yu nu yëngu rek dañoo war di yëg suñu borom di ko dund loolu mooy li nu war waaye waruñoo doon ñoo xam ne feeg newuñu allahu akbar seen xel du dem ca jàkka ja bis bii di ñuy santale suñu borom sëriñ bi it waruñoo doon nit ñoo koj koo xamante ni da ngay dàq rek ca bis ba dëgg la naam bis bii la ni ku mu fekk ci kaw suuf loola xëy na moom sunu yërmande la yërmande jum ñu yërëm la ak xam gum xam sunu lot ni nga xamante ni sunu borom looloo tax ñun ñu yaafus ni ñu nu indi juróomi waxtu nga xam ne xëy na ah buñ noddee suba nga xellu sam xel dem ci moom buñ noddee tusbaar noonu tëkkusaan noonu timis noonu gee noonu waaye nag gaa yi yàlla yu dëgg ñoom amuñu wenn waxtu wu ñuy sëlmal ñoom duñ sëlmal mukk kon bis boobu yi nuy noonu lañ ci war a doxee waaye day mel ni bis ba mu ñu dàkkloo nun yeewu fi ñi da waaye gaa yi dëgg xam nañ ni waxtu wu ne ñi ngi dund tawféexi sëriñ bi dundin woo xamante ni tuut nañ ñu di ko def ci benn bis mooy tax gaa yi murit saadix yi dëgg fu ñu toll ñoom seen tawféex seen diggante ak sëriñ bi bis yépp waxtu yépp saa yépp saa cant la ak fedd li seenu jaayante ndax mas naa koy ñett li benn bis toog naa ak Cheikh Mouhamadou Mountakha mii man ak moom ak Serigne Salih nun ñett rek ak yàlla mu ne ko ba mu ne ko ne na nga def mu ne ko minute bu ne saa su ne waxtu wu ne yeesal sunu jaayante ak yeesal sunu cant rek loolu nag fële taali bi yépp war a nekk ndax ku ci ne am na loo yëg sa diggante ak sëriñ bi loo natt bi loo laam laamee wut ba tax na kon noonu lañ ko war a dunde kon loolu maa ngi ciy dénk saa bopp kum doon ma tàmbalee koy saa bopp taxawaay boo ci doon def na na yokk nu bokk it gën a góorgóorlu ba lépp lu nuy jëf buñ jëfantu ab jullit du jëfantu dañuy jëf ngir yàlla nañuy sellal suñu yéene te yàlla tax loolu am solo la ndax jëfit lu mu bari bari bari boo ko gisee mu yàqu boo gisee sa bopp yàqu bul ni ñee ngay jëf naa dem jëfilee déedéet sa jaayante nay dëgg te na sell te na yàlla tax loolu am solo la jëf bala ko yàlla nangu yàlla rekk day tax nit ñi duñ la tax a jëf duñ la tax a bàyyi loolu it nañ ciy góorgóorlu bu baax nun na suñ bopp set ci nun na sunu jëmm leer ci nun na sunuy xalaat leer ci nun bu ñu am benn yëg-yëg ci lu ñuy jàpp ci nun ak lu ñuy woyofal ci nun ak lu ñuy bàyyi ci nun bu ñu nekkee ci lu baax ñépp maase nekk ca ak nun na yem képp képp képp képp képp ak ñépp won nu ca gannaaw ñépp maase dinu tagg feeg yemaliwuñ ko ñépp maase dinu ŋàññ nanu wóor ni demagun fenn barki démb damay doxantu am ko Mohamed mii laa àndal nuy doxantu ma ne ko Mohamed ma ne ko Mbàkke ma ne ko ak taalibe yombu noonu dañuy wax képp waaye doona gunu ay taalibe ndax ab taalibe du mer ndax bu ñuy wax taalibe taalib mooy koo xamante ni dem na ba àgg ci mënatut a rëy mënatut a gis boppam mënatut a gisal mënatut a naw jëf mënatut a wax lu dëgg mënatut a jëw mënatut a fen ma ne ko tey ku ci doon waxtaan ak sa mbokkum taalibe képp mu ne ko li nga wax du dëgg nga daal di bëgg a gis sa bopp te waroo gis sa bopp bu nee la yow li nga wax du dëgg dellul ci sa bopp bu dee dëgg la loo ciy mer bu dee yow xam nga ne yow li nga wax dëgg la jur mer di bu dee li nga wax du dëgg it mereel sa bopp waaye waroo koo mere moom kon mer wurta am foofu yaar rekk ci nekk lim la wax muy dëgg wala du dëgg bu dee yow li nga wax du dëgg sa bopp nga war a mere ndax yow yaa wax lu dëgg wala nga def lu dëgg bu dee moom la mu wax du dëgg jurut mere xam nga ne yow li nga wax dëgg la li nga jëf noonu la loo ciy mer jëfoo ko ngir moom yàllaa tax nga di ko jëf mooy tax nañuy xoolaat sunu bopp ma ne ko nit dafay natt boppam ci lu man di doon nga ni waaw lii am na mbokkum taalibe bi bu ma toogal mu ne man de sëñ bi yu bari dama ci jéem a natt sama bopp ndax bu ma nangam gaaroon bu ma nangam gaaroon bu ma naan ma ne ko yaa ngi ci lu am solo nag nit dafay xisaab boppam bala ñu ko xisaab loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale nit ku ne ku xëy war ngaa xool sa pas-pas sa digganteeg sa borom xool sa pas-pas sa digganteeg sëriñ bi nga àndal ngir mu yóbbu la ci yàlla ba xam yow bi nga sukkee ci moom ne ko loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi nga xool ay ndigalam noo ca def xool ay terem noo ca def waaye waroo booy rek di wéy di dem boo ne ko man kat yaa ma yàlla moo ma gënal sama jëmm boo ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi moo gën a yey ci nun sunu bopp moo gën a yey ci nun sunu alal moo gën a yey ci nun sunu njaboot ndax loola am na fu ñu ko référé de ndax waxtu wu ne am na ñu fi teewal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax loola nun noo ngi koy dund wala dunduñu ko loolu dañ ko war di seet bu baax a baax te tey bari woon na ñoo xam ne kat bu ñu toogoon fii ci biir mbooloo benn baat dong bu ko waxee ñu fees dell yow dama koo fenn ba tey saytaane ngi ci sa biir mooy tax nanuy gën a góorgóorlu tey gën a takkuwaat di nafaraat sunu bopp nit day nafar boppam di xool ay pas-pasam di ko settantal ba xam mi ngi ci ca la mu war a nekk wala nekku ci mooy tax maa ngi digal sama bopp te di leen dénk buñ bëgg aw tagg buñ ragal aw ngàññ nit ñi bu ñu bu ñu tax a jëf bu ñu tax a ba andiwuñ ñu ko ci kaw suuf ñoom nit ñi bàyyiwuñ ñu ci kaw suuf dun ñu fi jële dunu laajaat yàlla nun lay laaj mooy tax suñuy jëf na leer ci sunu bopp booy jëf lu baax ci jamono bii nag lu jafe la lu jafe la ndax anam gooy mën di jëfe rek waaye ngay jëfe ca woow melo te la muy wax du dëgg ci moom li ci ëpp melo woo man di feeñal ci yàlla it waaye nga mel woow melo te du dëgg ci moom waaye nag yow dellul ci sa bopp xamal sa bopp sa yaqini bopp na gën a wér ci noonu lépp lu nit di njort ak xalaat ak foog loolu yi nan koy bàyyi xel ñun ñépp nit ñi ku mu man di doon yàlla du la laaj ca moom dara ëllëg yow lay laaj bul wétlikoo kenn ku dul yàlla bul bàyyi xel kenn ku dul yàlla bul yaakaar kenn ku dul yàlla nan yaakaar yàlla nañ wóolu yàlla nañ bëgg yàlla nañu topp it yàlla ci ay ndigalam te di ko tuubal rëcc rëcc yi nga xam ne matak doom aad matadik doomu aadama dana ko yóbbe bu ñu naagu mukk mukk mukk mukk mukk mukk mukk abadan kenn xamutu looy mujj réer gi nga réere su réer gi nga réere sunu mujj war naa tax lu bari ñu di ko bàyyi xel lii nga wax léegi sëriñ Seex nit a ngi dox nekk ci lu baax defe ne mi ngi ci lu baax ba bëgg caat naa ko defe ne ci lay dee nit nekk ci beneen safaan nga bëgg koo xeeb defe ne bu ca dee tukkal àdduna fekk yow yaa ngi dox jëm ca la kooko nekk kooko mi ngi dox jëm si ci li nga ne yow te xamoo ci dara mooy tax bu ñu naagu mukk bu ñu gis suñu bopp mukk bu ñu gis suñuy jëf mukk maa ngi leen di dénk tey doolu lee dénkaat sans bopp nanu gën a feetli sunu laxasaay ci ndigalam gën a teet ay tereem te doolu lee gën a doon roykaay ku ne lam bëgg yi nag am na lu ko jaral am na lu mu ko jaral yàlla mi ñuy woote ni moom lañ bëgg nañu nattu suñu bopp ba xam lan lanu jaral ku ci ne am na lu mu bëgg dangay gis koo xam ne lam bëgg waxtu wu ne guddi bëccëg suba ngoon ma ngi koy rëbb ma ngi koy rëbb de rëbb gii ngay rëbb li nga bëgg te mu wóor na ci sa bakkan dong la teg ak ci sa bànneex bul defee ni yàlla gisuloo mbaa déggu la mi ngi lay dégg mi ngi lay gis rëbb njubug yàlla jëralu la loola rëbb fekk fu nit ñi aajoo nga dimbali leen jëralu jëralu la loola rëbb nit ki fu mu tawatee nga mën koo faj jëralu la loola rëbb suturaal nit rëbb dimbali nit rëbb tax taxawu nit jëralu la loola te yow la ngay rëbb mu mu dëppoog sa bakkan dëppoog sa bànneex yaa nga cay dige yaa nga cay jëf yaa nga cay def lu ne amaana sax loola doo ko fekk wala boo ko weesoo mel ni loo musta aw mooy tax bëgg gi ñuy woote ni dañ ko bëgg suñu borom nan xool lim nu jaral ndax ku ne kat lam ñu bëgg na ko tamit dëgg ci moom am na lu mu ko jaral de ñun ñëpp nag nañ dellu ci suñu bopp tàmbalee ko ci sa bopp dal ci yéen nit lu mu bëgg bëgg caa jariñu am na yoon wu mu yoon wu mu yaakaar ni mën na koo caa jaarale rek ci nun ñii ma nga ca am na ci ñoo xamante bu ñu la doon bécc nga lëkk lu nañu di leen ko defit dañuy daal di wëñ wëlbatikuwaat rek ne ca rek moom koy seen bët lañ ca teg am ko rek ak lu mën a jar nag jaral na leen ko ndax nun yàlla jarale na nu noonu wala déet loolu nañ koy bàyyi xel fu mu toll nanuy wattandiku ak tooñ nanuy jéggale ak tooñ nañuy yëre bindee fi yàlla yépp nañuy suturaal bindee fi yàlla yépp nañuy dimbali bindee fi yàlla yépp sunu borom dana def ay tawféex yooyu jëmmay tax mu defal la ko yàlla bu la defalee tawféex ju mu jaarale ci nit ni nga xam ne tey sunu borom dafa wax ne kenn ci yéen du ma nangu ak cantam lu dul ni daf koo dafa cant googee kama jaarale ci sama mbir ci moom daf koo sant ba noppi bu ma yëkkati woon tey dara muy njekk wala muy teraanga ma defal la ko war ngaa sant yàlla de waaye santal ki teraanga ji jaar ci moom ba agsi ci yow ba noppi loolu la yàlla santaane loolu yi nga xam ne teraangay saayir la kat yàlla dana jaarale ci ay jaamam teraangay adduna ak teraangay alaxira daw feex joo yëg ci sa xol di ko dund loolee bul ko fàtte mukk nit de barewaa na lu mu am loo xam ne léeg-léeg la ko may sax daf koy bëgg a fàtte te loolu yi ëpp naa def dana da waral mujj gu ñaaw li nga am ci taw feex nga fàtte fa fi mu jóge nun ñépp ku ci ne la ngay dund ci taw feex soo fàttiwut fa mu jógee te di ca cant cant nga ca war ne la wóori loo ci du asakay lay dikk ci mbaaxam ci yërmandeem ci tawfeexam ci suturaam ak kaaraangeem bu nu naagu mukk nanuy góor góorlu nanuy farlu nanuy laxasaay ci lu baax nañ cay xëy nañ cay gont bépp rëcc rëcc bu gaar nga xam ne matadik doomu aadamaa ko warale ñu ci ñu di ca tuub te di ca jéggul nañu takkoo tuub tuubal yàlla sunu borom nanu takkoo sant yàlla sunu borom nanu takkoo ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala ndax lu ci ne rek yàlla dana cay bit mbir mu dem dayo te lu ci ne dafa bëgg jaam bi di ko def kon yàlla noonu yàlla gën a taxaw yàlla noonu yàlla gën a sàmm yàlla noonu yàlla gën a aar yàlla noonu yàlla gën a yiir yàlla noonu yàlla gën a dimbali yàlla na yàlla saxal nu tarafetal mbooleem lu nu yëg ci ci cant ci sunu digganteeg moom du asakay liy dikk loolu nag du du du man mi toog di wax bu bu nit ñi xool jëmm ji doy di ji du xeebu ji di wax waaye innal fadla bi yadillah yutihi ma yasha dafa bokk ci coobareem jooji nag mu def ko loolu du nun de xamal nañ ko suñu bopp ni ñu ko waxee léegi waaye nag moom la te luñ ci yëg di ko dund it du asakay liy dikk loolu nag mbaaxam la yërmandeem la tawfeexam la ndimbalam la kon noo ngi ñaanal bokki taalibe bi yépp yi ne ci biir réew mi ak yi ci bitim réew te di leen soññ ñu gën a yokk suñu yitte gën a sellal suñu pas-pas te jëmm yàlla suñu borom subhanahu wa taala rek la kon noo ngi tënk foofu kàddu yi mën a ñaanal mbooloo mi yépp ku ne tànk yi mu fi dikkee yàlla na ko sa borom jëggal jëggal gu sax tànk yam yi delloo muy fajub aajo te aajo yépp sa borom faj ko ci gën ngaa jàpp ndiini anam te musal nu ci mboolem ndog ak pakk ak musiba ak balaa bokk nu defal mu rafet salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kon ñu jox sëriñ Ousmane nii am na benn baat wala yaar yu ñu ci bëgg a sànni rek te nu bàyyi ko xel lim loolu muy wax ba buñ ca àggee képp ku ko man mu def ko defee mu rafet ndax ci guntu yi nga xamante ni dees na ci amee ngërëmal yàlla suñu borom la bokk bismillah sayyidina Ousmane bu noppee rek nu mën a ñaanalante ñu mën a yokk te mucc
alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin allahuma laka alhamdu wa shukr jërëjëfe maawul xayaat xam naa kàddu yi dana diis ci ñun ndax ni ko sëñ Mor waxee léegi yëkkati ay kàddu ci jotaayam moom yërmandeem rek la lay roof ngir nga mën ko moom mi ngi wax suñu borom moom moo xam yàlla subxanahu wa taala ñun moom lañu xam ndax moom ci moom la ñuy yëgee suñu borom moom muy tudd kon moom lañ mën a waxal. damay faral di wax sax sëñ Baye Fari doon na ko wax léegi waaye dama ragal daf ko cof dafay wax ne moom yërmandeem bu ñu mënee toog ci wetam sax di wax déedéet ñun dañ ko yelloowul sax. yàlla wuñ sax nekk ay ndongoom moom yërmandeem la damay faral di wax ak mbokk taalibe yi ne maawul xayaat maanaam bu jëflante woon ak ñun ci àqam ci misaal rek moom fu mu ne rayon un million de kilomètres carrés ñun mënuñu faa taxaw yàlla wuñ ko ndax mataluñ lenn ni sart ngir nekk ci wetoom wallahi laxasim man de sama yëg-yëg la loolu rayon un million de kilomètres ñu ne maawul xayaat li ñuy wax maawul xayaat mi ngi ci rayon boobu kenn ci ñun amul darajaay xeeñ xetam sax xetam di la xeeñ tey ñun ñu toog moom mu toog ñu ne maawul xayaat a ngi nii ñu ni ko gis di bànneexu ci moom di yëg ci moom ñu yaakaar ne lenn lañ ci duñu ci dara kon lépp mooma kon Mbàkke ñu ngi lay sant di la gërëm li sëñ Mor wax nag mooy loolu de Mbàkke da ngaa bëri ay taalibe yu doyadi ni man man moom jàpp naa ne maa gën a doyadi ci jaam yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp man damay am kersa Mbàkke di toog sa wet wallahi la kon bu ko defee ci ndigalam rek lañuy wax ci waajtaayu màggal gi ñu jëm daf ñu joxoon ndigal ci ñu waxtaane niñ ko mën a nase ba mu tegee ci ni jamono dëppoo fi mu ne ndax kenn ku ci nekk xam na mbas mi nga xam ne suñu borom dogal na mu dugg ci réew mi te moom ni mu ciy doxee dafa yéeme ndax fas alo ahlu zikri in kuntum laa tax la moon moom ci ci aaya boobu ci ci maamul xayat nga koy gën a déggee ndax moom dafa xam lépp waaye nag dafa jelluwaat lépp temporel ne wax leen nin jaam yi war a doxe léegi rek bi mu dugg see soññ na ma soññ goo xam ne mboolem sama cër yi tiit nañ ndax nee na ma bu ngeen nekkee ci biir mbooloo mi ngeen nekk war a organiser mbooloo mi bu leen ma xaarati ci dara bu leen toog rek di xoole da ngeen a war a distanciation sociale li mbooloo mi war a taxawee yépp ba ci takk masque ak yépp ngeen di wax kon mu mel ni ñun dañoo yaafuse lool moom mu raw ñu lu baree baree bari kon loolu war nañ cee gën a taxawaat mbokku taalibe yi ñu xam ne tey image yi war a wër wala képp ku koy gis man jàpp naa ne doxalinu kër docteur ci wàllu mbas mi kenn waru cee jiitu njabootu maamul xayaat ñoo ko gën a war a gën a rafetle ñoo ko gën a war a mën a jubale ba képp kuy roy exemple ci sénégalais buy jëfee ndigal barrière mesure barrière ci wàllu mbas mi ci njabootu maamul xayaat nga koy jànge man loolu mooy sama pas-pas dama jàpp ne lépp lu baax lépp luy jubal àdduna rek ci njabootam lañ ko war a xoole kon ñu ngi ciy soññaan mbokk taalibe yépp ñu gën a bàyyiwaat xel ne mbas mi mi ngi ci réew mi jógu fi te kenn xamul kañ la fiy jóge lu dul ci coobaree suñu borom rek waaye nag loo gis sabab da caa baax gannaaw moom wax nañ ne sabab bi tawat bi lii lañ ci nii lañ ciy mucce kon nañ jëfe sabab yi tey ñaan yàlla mucc kon loolu mooy li li sëñ bi waxoon nañ ko nañ ko jottali ñu fàttaliwaat ko bu baax ci wàllu màggal gi ñu ngi ci am ay nas yuñ ciy nas am na lu ma ci waxtaanee ak moom xëy na bu lépp demee ba tënku danañ ko mën a jox sëñ Baye Fary mu jàllale ko ci ci ci jokkookaay yépp mbokku taalibe yu buy ñëw màggal xam ne lii mooy doxin wi te loolu moom wax na ne suñ ko defee ba pare nañ ko ko wax mu joxe ndigal ne loolu mooy doxin wi ba ci jëmm boppam la koy tàmbale kon loolu moom lu lu lu lu rëy la lu mbokku taalibe yor a bàyyi xel loo xamee nag sa kilifa moo ci jiitu te di ko jëf nga koy gis mu di ko jëf yow mbokku taalibe amatoo lay amatul benn lay kon nañu gën a saxal mesure yi bu baax a baax te fonk ko la cay dolli ko mooy buñ daan jëm ci màggal gi dañ daan def li ñuy wax don de sang maye deret loolu kon waxtaan nañ ceeg moom xamal nañ ko ne ci xam-xamu kër docteur fi mu nekk jàpp nañ ne lu mën a nekk la ci anam yu bari nag rawatina ci jamono ji ñu toll nga xam ne réew mi ci boppam ku nekk xëy na ñiy déglu média yi dégg nañ ne centre national de transfusion sanguine centre bu mag bi nga xam ne moo nekk Dakar di lijjanti lépp luy wàllu mayam deret ci réew mi mi ngi def ay clic ay ay alerte di di di def alerte rouge wane ne Sénégal daanaka amatul deret li ko waral bokk na ci mbas mi ndax ñu bari xëy na ñemeetu ñoo dem maye deret te loolu lépp xëy na ñàkk xam la rek kon su réew àggee foofu nag war nañu ñun njaboot gi kenn waruñu cee jiitu ci fexe ba banque de sang yooyu amaat deret moo tax kon ñu ngi woo mbokk taalibe yépp dimanche 27. septembre incha allah mooy dimanche bi mujj ci weeru septembre moom lañ ñu jàppal pour ñu organiser don de sang bi niñ ko daan defee kër Mbay Fall lañ koy organiser waat xëy na ren dinañ ci dolliwaat mesure barrière yi bu baax a baax buñ ci gënee jub incha allah dinañ jàllale ci diwaan yépp képp kuy ñëw yan anam nga war a dikke port de masque beeg raxasu yeeg distanciation bi yooyu yépp danañ ko organiser ba fañ koy defee dinañ xool nan la ñuy dugalee nit ñi par groupe ba keroog liggéey bi mucc ay deret jooj ñu mën ko def nañ ko daan def kon loolu mooy ndigal li nga xam ne moom la ko baax ki waxoon ñu jàllale ko ñoo ngi tuubaat mbàkke bu baax ci kàddu yi sa kanam di la jéggalu bu baax a baax